haqiqatul iman alaaji Fallu yaay borom kéemaan sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou Boussa Dieng bay baa ab xalifa di moom xarnu beeg Tuuba tabax jumaa ji alaaji lay mooy xalifa moom yoonu Makka new leen néew fa moo bi yoonu Makka ak Madina ay million sappee moo bi yoonu Makka Alaaji Baara Mbàkke saana diina yaab siyaare Amadul Makkiyu dellu siyaare Amadul Mbàkkiyu dellu siyaare waa Baqiya xabru Tayiba siyaare kër njool Makka xam nga barba Seex Fallu añ na fa Makka sànni jamra fon doj wa dem Arafat dellu umra dem na Safaa dem ma tama dalli fa taxaw makaama dem na langale fa Seex Fallu julli jumaa ja naan ca biir sam-sam kaaya waa makkata yaa bari ndam yaa am jaloore ndam ma tiital mu ne su laa ngañati yaa di suukar maa ma sa bari jël na ndam la Bamba ni fallu fallum yàlla alaaji Mbàkke bu sey ni jaayam Bamba di baayam fallu di jaaram yaa jara way yaa jara joxi daaya yaa jara jaamu yaay borom yi la masin ba joona suubu leen dem gaar ba leen taxaw jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Falilu jóg leen taxaw ni sant Seyxi Fallilu guddeeg bëccëg ñu jublu Seyxi Fallilu yaaro ci mboolem lawlu yow Fallilu yaay Mustafa yaay Muntakal yaay wàlliyu géejug mbindeef yi ay gi neex na Mbàkke Seex Fallu fam nga jumaa ji xàll yoonu Mbàkke sengul daagul dugal tariixu laay alaaji Fàllu yaay rasuulullaay dem nga fa Makka xam nga ni li laay alaaji Fàllu yaa juboog li laay am nga nga ni li yàlla hubbu laay xam nga nga ni li Bàmba hamdu laay sariyatu aqiiqatul iimaan alaaji Fàllu yaay borom kéemaan sëñ Moodu Busa Jeng sëriñ Modou Bousso Dieng sëriñ Modou Bousso Dieng sëriñ Modou Bousso Dieng bay baa di ab di alaaji moom xarnu beeg Tuuba tabax jumaa ji alaaji Fallu lay mooy xalifa moo bi yoonu Makka naw leen néew fa moo bi yoonu Makka ak Madina xarnu bi naat na ay million sappee na moo bi yoonu Makka ak Madina alaaji baara mbàkke saana diina yaab siyaare amadul makkiyu del siyaare amadul makkiyu del siyaare waa baqiya xabru tayiba siyaare kër njool makka xam nga barba seex fallu añ fa makka ba sànni jamra foon doj wa dem arafa delum ra dem na safa dem ma tama dalli ba taxaw makaama dem nañ langale fa Seex Fallu julli jumaa ja naan ca biir waa Makkata yaa bari ndam yaa jaloore ak ndam a tiital mu ne su la yaa di suukar maa moom sa jël na ndam la bambani Fallu laayi fallum yàlla ala ci Mbàkke bu sey ni jaayam bamba di baayam